a aouzubillah bismillah barke borom tuuba asalaamualeykum wa rahmatullah waa daara ji ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu ak tey baal ñëpp di ñaan na mu def ñu ay jullit xaqan def ñu ay murit sadiq xiir ñu ci ak jub te saxal ñu ci ba faw jàpp dalal ñu ngërëmal Serigne Touba def ñu ñu dëgg dëgg taalibe Serigne Touba yu Serigne Touba nangul seen taalibe te gërëm ko boole ñu ciy tànneefam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 tey ñu di ko jëmale ci benn ci tomb tomb yi nga xam ne sëriñ bi dafa am ñu ci doon tontu ci ku ko doon laaj lan mooy dégg-dégg ak soobu ak lan mooy yoon wi bismillah sëriñ bi ginnaaw bi musloo ci soytaane wax ne sunu boroom musal na ko ci soytaane musal na ko ci lori bakkan musal na ko ci lori bànneex musal na ko ci lori àdduna da koo tontu ne ko lii ngay laaj naan da ngay sàkku ma leeral la déggi déggi ak soobu ak yoon wi ba fa say wax yam li gënoon a rafet mooy nga laaj déggi déggi imaan ak lislaam ak ihsaan ndax xam dëgg-dëgg yooyu moo gën a yitteel di leen weesu di jëm ci yoo xam ne mel na mag foonul seenu xet ci jamono jii wala lu boog néew na lool li ma lay tontu ci li nga wax ne mooy sa laaj bi njëkk ba fa say wax yam moo di man dey maa ngi ci chariatu ak xaqiqatu chariatu nag mooy li nekk ci téere yi xaqiqatu mooy la nekk ca laxul mahfuz moo xam ñëw na ci téere yi wala ñëwul ci téere yi li ma leen di digal te mooy li leen sunu borom digal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam digal leen ko mooy ngeen jàpp bu wér ci shariatu te mooy sunna képp ku topp nag boppam lay toppal ku toppul itam boppam rek la koy def ndigal yi nag ñetti xaaj lañu ndigal lu bàyyikoo ci yàlla subhanahu wa taala ak ndigal lu bàyyikoo ci ku xam yàlla subhanahu wa taala ak ndigal lu bàyyikoo ci ku xamul yàlla subhaanahu wa taala te sàkkuwu koo xam sunu boroom da lay ngir jariñ la di la tere ngir musal la waaye moom du jariñu ci yow du sàkku ak mucc ci yow ku xam yàlla subhaanahu wa taala da lay digal ngir ngeen bokk jariñu la tere ngir ngeen bokk mucc ku xamul yàlla subhaanahu wa taala te sàkku koo xam nag da lay digal ngir jariñu di la tere ngir mën a mucc moom ci boppam nit ñi itam ñaari xaaj lañu kuy roy ak kuy toppandoo kuy roy du wuute kamuy roy ci dara ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy gis kamuy roy mi ngi gis ci saahir ak ci baatin képp kuy digle te teg ko ci bakkan dee su ko faale kuy toppandoo bu fekkee kamuy toppandoo mucc na dana mucc chariatu nag am na ak mucc naka noonu itam xaqiqatu mi nga xam ne moo jóge ci allahul mahfuz am na ak mucc waaye nag ñëpp maase wuñu yem ci xereñe loolu ak ngëm nag ci ab xol lay nekk lislaam ci ay cër lay nekk lihsaan ci lépp lay nekk li yàlla ci yéen nag te tawar ci yéen moo di sàmmonteeg li ci téere yi tawxid yu wér yi ak téere yi fiq yu wér yi ak téere yi tasawuf yu wér yi te bañ leen di jéggi di jëm ci jagleel ñoo xam ne sunu boroom da leen a jagleel loo xam ne da koo tere ñeneen yàlla na nu sunu borom defal tawféex ci ak jub subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lii mooy tontu bi ko sëriñ bi tontu di tontu boo xam ne ay njëriñ la fees dell yal na nu sunu borom may ak dégg akuk topp akuk jëriñu akuk mucc wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh